fii mooy Sesokok waaw bu bu taw feex euh, Sinwaa yi ñoo ko yor léegi nag dañ fi am problème problème boo xam ne fii fu nekk jooytu nañ ko fa mais nag tey jii la ko yàlla dogal gis nga fii liggéey bi metti na yaa ngi dégg dañuy yëkkati ay weñ yoo xam ne sii mët nañ ñetti bërigo amul quatre plan amul lenn loo xam ne yaa koy jàmm yàlla ñoo koy yëkkati dañuy wàcc une heure de matin duñ leen jox paas dañuy dox am na ñoo xam ñu ngi ñibbi ba nguy am na ñoo xam ne ñu ngi ñibbi sumbaay ba fu kenn xamul ci àdduna yaa yaa ngi dégg ñoom ku ci wàcc da ngay daagu ndànk dugg sa biir néeg jaan mën na laa mat mën ngaa tare agresseur mën ngaa am leneen ak leneen loo xam ne aw gàllankoor lay doon ci yow sa njaboot ñooy perte yaa ngi dégg deuxième bi mooy ñun ñi nekk ci waañ wi yaa ngi dégg sonn nañ guddi sonn nañ bëccëg dañuy fekk ñu ndekki bi ñu doon def ci biir waañ wi nga xam ne si gaynde sumbaay dañ fay toog di xéewlu loolu sax dañ leen koo tere ne leen léegi bu ngeen di ndekki ci génn leen ca biti yaa ngi dégg ngeen ndékki fa ba pare door a ci biir waañ yi Baay Faal loolu yéen woon maanaa bu dee bañ ñun ñi ga xam ne si ñun ñooy jullit ñoo leen war a bañ yaa ngi dégg ah troisièmement bi mooy ñi nga xam ne si ñoo fi nekk muy wàllu peyor bi man depuis baas bi ba ñuy jënd suuf si maa ngi fi toog ba suñ jonni tey maa ngi fiy taxali sama wërsëg yaa ngi dégg amul luñ ma tegul nag mais lépp dama koy nangu parce que man ab Baay Faal laa lu nekk dund naa ko du ma xale nag magam jëmm laa yaa ngi dégg mbooloo mi li mi bëri bëri ku ma fi magul magoo ma kon maa ngi koy sant Cheikh Ibra maa ngi ànd ak ñoom yaa ngi dégg mais nag li nga xam ne si mooy problème bi mooy lii li nga xam ne moom lañ leen wax nañ ñu ko nangul njàng mu nekk am na àllarba yaa ngi dégg njàng mu nekk am na àllarba samedi bi wala dimanche bi nañ ñu ko may ñu siy seet suñu njaboot di toog ak suñuy njaboot parce que boo dee ba ca palais ba sax am nañ samedi am nañ dimaas bu ñu ko nangoo jox ñuy relawante bu ñuy ñëwee tey ñu ñëw suba. ah mais gaynde chaque jour gaynde sum waay allez allez allez allez comme pasukurtu pasukurtu boo ko defee nan te ko pikir mu faatu ah trois quatrième mois bi mooy lan yaa ngi dégg fii huit huit yaa ngi dégg lañ ñu wax bala ñu fiy jóge sum waay muy six heures ci ngoon yaa ngi dégg dañ lay liggéeyloo di lay liggéeyloo ba midi ñu woola ba nga ñëw ñu ne lee eh, demal ñaari dimanche nga toog ko ñaari dimanche yooyu duñ la ko pointé te ñoom ñoo la jox ndigal pour nga dem toogi ko ah troisième bi mooy sumbaay bi nga xam ne si sumbaay yaa ngi dégg dañ lay dàq sans droit yaa ngi dégg dañ la naan eh nga naa am ñu ne la kaay nga ñëw ci biro bi ñu ne la ñaata fan nga ne sumbaay nangam ak nangam ñu jox la ko sumbaay dàq la loolu tegul ci yoon yi waaw te ñun weer lañ weer lañ am yaakaaruñu kenn nag yaa ngi dégg ginnaaw li ñuy yaakaar muy première suñu ndey suñu baay deuxième bi yaa ngi dégg mooy Macky Sall mi nga xam ne si ak nguur gi nga xam ne si ñoom ñoo ñu fi nekkal amuñ fu ñu sës ko amul foo wéeru nag da ngay neex a bëma représenté jigéen ñi nekk fii si waañu CGCOC bi ñu ngi interpellé gouvernement Macky Sall moom mi nga xam ne moom mooy signanteeg sin waaye contrat ñu ñëw fii nii mu xam ne ñu ngi ñuy teg xeetu njaamel gu nekk fii liggéey loo liggéeyu wet sans condition duñ ñu fay fay bi ci war yokkal ñu suñuy salaire signal ñu ay contrat dëgg ci seen tànk yoo xam ne appliqué wuñ ko di ñu fay par journée yoo xamante ne normal duñ fi nekk loo ba ay 20 ñuy wàcc duñ ñu fay duñu jël taxi boo tardee benn retard une minute ñu dàq la bu ñu la raxas loo boolu xaj wala ñu bale loolu nguunu ganaar wala sangu loola xaj defoo ko ñu dàq la te ay waañ la ñu jël loowoo loolu yëpp ñu ngi ko fii muñ nag Macky Sall ñu ngi koy interpellé moom mi xam ne moom mooñ seefe yor ko mu taxaw ñu wala te xam ne ay njaboot lañ ay sénégalais lañ dañoo bëgg a liggéey te yàlla tax mais ñu ngi fi dund xeetu njaamel gu nekk metti na nag ñu ñu ñu ngi booloo nag topp ci ginnaaw góor ñi daan doole rek moo ko waral travail sans condition lañ fi nekkee ñu ngi koy wax tamit ñu ngi interpellé monsieur le ministre Dame Diop di ko xamal ne ñun waa askan bi lañ doomu njaareem lañu nañu ñëw jàppale taxaw ñu walluñu geestuñu waaw wax ak inspection du tamit ñu jàppale ñu suñu amee suñu problème wax leen ko ñu ñëw gestuñu waaye ñoom war nañ ñoo jàppale mais suñu amee suñu problème dañuy nëkkandiku looloo tax ñi fi nekk yëpp ñu waaye njiiti nañ ñu jàppale suñu njiiti jàppalee rek ñi fi nekk ñu ngi interpellé monsieur le maire Malick Fall képp kuy autorité fii njaareem rek ñu lay interprété nga ñëw taxawuñ parce que travail yi ñuy liggéey metti na trop instant yii nii ni maa ngi taxaw di wax micro mën naa dem ci biir ñu ne ma acca duñu añ fii dañ lay suñu la jëlee dañ lay jël doo amu yoruñ la sa añ yoruñ a reer yoon ñun ñooy togg mais doo ci laal dërëm ñun ñoo leen di toggal añ ak reer ak ndékki mais doo fi lekk doo fi naan amoo droit laal fi dara luy sex ñam bu desee ñu ne sottil ko xaj desee ñu ne sottil ko xaj yi xaj yi eh, boo leen sangul ñu dàq la mais instant yi dañuy sangaale xaj di raxasaale ay nguunu ginaar ak lépp ci biir am nañ suñuy preuve yu leer ñu ngeeg suñuy vidéo suñu liggéey loo xam ne du yoon dañ koy caméra denc ko li ñuy wax ni kafantu wuñ ci dañ ko dañ ci am preuve yu leer lépp lu ñu liggéeyloo te du dëgg dañ koy caméra denc